nga xam ne référence la jëlale na Sénégal waaye ci Afrique li mu liggéey ci communication ci journalisme fu nu mën a nekk ci àdduna rek papa ñun dañ lay tiitaroo dañ lay ndamoo ndax danga nekk doomu géwél ba pare nag nga moderne ndax li ma daaneel sànq li nga ne ndax ma wax ko ci wolof walla ma wax ko ci français loolu daf ma daaneel yal yàlla guddal sa fan di nuyu suma mag di ma conseiller fu mu mën a nekk yàgg ma suivre aussi yàgg suivre sama cursus muy grand Guy Sepène moom it di référence tey ci musique ndax Sénégal kenn dootul wax kilifa yi nga xam ne ñooy décider ci musique bi ba ci autorité yi te consulté wu gise pen ndax da ko liggéey dund ko ak artistes yi yàgg nu taxaw aussi tout le temps rek xelam mi ngi nekk si ñi nga xam ni amuñu moyen amuñu doole wala seen baat guddul mu leen di représenté ba pare nag di nit ku véridique quoi grand ñu ngi lay remercier si sa déplacement di nuyu aussi moo frère ñu bokk métier mi et ma am respect bu bëri si moom muy Zeynoul Zeynoul un très grand musicien avec un très grand cœur wax dëgg yàlla euh, liggéey nag artistes yëpp tey ba pare nag di intellectuel di boroom xel mu sell tey mënoon na ne niveau bi mu am du def musique mais musique passion la donc euh, ànd nañu comme ni mu ko waxee déranger naa ko ci dëkk yu bari jëlee naa ko fii war a dem tournée américaine ma woo ko mu ne ma non avec un très grand plaisir mu bàyyi liggéeyam bàyyi léppam ñëw ñu ànd un mois ak sama mag Birane Sarr New African Production di nuyu nag sama xarit suma cheikh Bakkan Bakkan sànq li mu wax dëgg la lu ji njàgg rek moom mooy njaag ndax bi muy metti ñun ñaar la woon li mu naan bu la kenn avant kenn di la gëm man maa la njëkk a gëm dëgg la wax na dëgg dëgg gu wér la wax ndax ànd nañu fu bari dugg nañu fu bari maa ngi nuyu sama tonton Alaaji Gakaay Mbay maa ngi lay ziar tonton maa ngi lay ziar bu baax nam nañ la nam nañ la tonton et di ko féliciter tey mën naa ne projet bi ci bàkkan la la sosoo di nuyu sama rak Modou Mbaye jëri ngoone maalo ba bay moo du maa ngi lay ziar bu baax moom su nekkee ci tele di wax booy Grand Dakar laay gis quoi <laughs> di xale bu am jom loxoom set aussi mu nangoo liggéey di ko wane saa su ne di remercier la presse press bi yéen ñëpp maa ngi leen di remercier bu baax a baax a baax amuñu seen fay ndax saa yu leen woowee ñun artistes dañuy yéex dañuy dañuy dañuy mais néanmoins yéen a ngi toog di ñu assister di ñu xaar. ba pare nag def liggéey bu set maa ngi leen di remercier bu baax a baax a baax et di nag mujjee sama rak mam Cheikh mam Cheikh man duma gis producteur mais petit frère laay gis sama rak laay gis ndax li ñu boolee deret la ndax boo nee kër Alaaji Maada Seck kër sama tante Aïcha Mbaye ne kër Biram Ñing loolu dafa yàgg boobu ñun sax juddooguñu et ma ñëw nag tey kontaan fekk famille bi yëpp donc muy plaisir boo xam ne lu tooy ci sama xol la Mame Cheikh di xale ma yar ko usine ñaari tali mu yàgg bëgg nag ñafe yàgg bëgg góor góorlu yàgg nangoo liggéey ba yàlla dogal tey mu dem ba dugg nag ci musique mu nekk aussi passion mën naa ni 2007 la ma njëkk yóbbu Nantes mu metti woon trop boobu mi ngi doog a démarrer ma ne ko maam bàyyil ma déplacé wu man rek fexeel nga dajale ay musiciens parce que boo naree jël groupe bi yëpp yóbbu ko day metti mais man je peux ma déplacer nga dajale ay requins ñu dem ma jàpp ci comme ça ñu mën a def événement bu am solo boobu mi ngi door a tàmbali. donc mille 2007 relation bi nag muy suuxat mu koy yàlla di ko suuxat maam di topp relation bi yàgg ma gëm nag yàgg ma tiitaroo fu nekk ndax nit ku nekk tey boo sañoon boo amee sa mag mu nekk ci dara di yëngu si dara e nga jege ko loolu dafa am solo muy événement yi ñuy def yëpp à chaque fois bu ñu amee événement bu mag su dee Paris maam dina jël billet d'avion wala mu taal otoom ñëw France ñëw Paris fekk ma fa yëkkati alalam jàppale ma ko bu dee Sénégal mu ne ma grand wax ma lan nga soxla ci événement bi ñu dugal ci suñu loxo. kon maam bi may gëm liggéey boolewuñu boobu xalaatul woon ne sax dinañ liggéey et jamono di dox nag ba tey mu teg label bu tudd Jéeri Ngoné comme ni ma ko koy waxee chaque jour nee naa ko tey label bi bi nga koy teg même boo yorul xaa boo yorul woon xaalis soo ma woowee ne ma grand damay teg label ma ne la la wax ma lan nga soxla ma mettre ko à ta disposition ndax yow tu es jeune frère sama rakk nga loolu kenn du ko natable rax ci dolli rax ci dolli nga bëgg ma di ma damoo di ma sagoo fu ma nekk nga fekk ma fa kon je pense que ni tey li nga def ambition la et que vas-y fonce donc bi yàlla dogalee baakan dem Europe ci confinement bi dem wuti woon ay matériel fekk na boobu presque démarré woon naa sama album bi waroon génn ndax bi ma jógee Prince Art rek laa commencé pour génne suma album ak suma label PDG ma ànd ceeg suma rakk maxtar ñu ciy liggéey ba jot a defar sax ay morso suñu liggéey rek dama koy envoyé Bakar ne ko booy déglul te nga préparé parce que boo ñëwee rek dañuy dugg ñu nekk ci mouvance boobu parce que man liggéey rek laa gëm man gëw ma leneen gëw ma succès gëw ma leneen parce que comme ni ko Ale waxee fi ma jaar moo metti man maa ngi juddoo usine ñaari tali yaroo ginnaaw raay teel a bàyyi sama jàng dem jàngi métier Parcelles Assainies donc mu metti trop ma juddu ci famille boo xam ne nag askanu ngéwél lañu waaye dañoo yàgg am jom yàgg bëgg liggéey donc ma nekk ci yoon woowu et dama gëm ni nag àdduna lu nit di am rek liggéey moo la koy may moo tax man awma dimanche awma samedi man bés bu yàlla sàkk damay liggéey loolu moo tax ñu naan Pape Diouf dafa timide Pape Diouf dafa yaru Pape dafa dal parce que aw ma jot damay liggéey rek ci loolu rek la laay sax donc bi loolu amee Bakar nag dem nant seeti suñu doom jooju Badal daje fa ak maam Cheikh ñu woo ma téléphone ma kontaan trop ma kontaan lool lool lool lool mu ne ma mais booy ma ne ko waaw mu ne ma maam nday ñu ngi doon waxtaan mais dafa bëgg ñëw Sénégal liggéey si vraiment nee naa ko ñi ngi préparé suñu album mais nee na bu sañoon moom it sa rakk la te dafa am ci yow cër bëgg na ñëw jàppale la ci liggéey bi ndax nag rakab magam nga te màgg na parce que ma maam vraiment ñu tooñante ma koy fàttali démb ñuy waxtaan mu ne mën a grand ñun say rakk lañu te ñëwuñu fii Europe di nelaw te ñun dañ lay tiitaroo foo xam ne sax nekkoo fa affaire business bugguma sax mu dox suñu diggante mais man maa am plaisir u tey dama am label ma bëgg nag dooree ci yow sa albam dama bëgg nga jox ma exclusivité bi ma def ko mais loolu keroog j'étais fier ndax loolu laa doon ñaan yàlla ma ne ko maam mu ne ma waaw ma ne ko loolu bul yeggalee ñëwal am nga loolu bul sax xalaat ndax man samay mbir géej la dafa yaatu rawatina nag yow ngay sama rakk ma yar la kon tey fekk nga ma dugg ci suma production ndax lépp a ngi fi lépp mat na waaye nag tey li laa doon ñaan yéen samay rakk ngeen dem di ma suivre ngeen di gis sama liggéey partout dans le monde ba am yëg-yëgu ñëw nag jàpp ci liggéey bi ndax nit ku nekk loolu ngay ñaan yàlla kon ñëwal bul xalaat dara li nga bëgg am nga ko bu doyul sax man ma jël def ci mu dolli mu ñu dolli mu nekk nag lu rafet bi loolu amee ma waxtaan ci ak ñi ma ci war a waxtaanal muy suma staff woo Maxtaar suma manager woo Xaadim sama rak ñu waxtaanee ko ñoom ñëpp ñu kontaan ci ñu ne ma mais maam suñu frère la na ñëw bu ñëwee dañ koy ubbil na ñëw toog jël affaire bi parce que nag mérité na ko. donc muy loo xamante ni tey loolu laa dese si musique parce que man amatuma lu may prouver macha allah sant yàlla li ma dese rek mooy sama ay ñu àndandoo booloo bokk ndey bokk baay liggéey pour développement wu musique sénégalaise ndax tey Sénégal amatul dara lu ma fi prouver ci kattanu yàlla donc tey Jéeri Ngoné jël nag affaire bi en main mais bi mu ko jëlee ba tey maam toqiwul sonnul tàyyiwul léeg-léeg sax dama koy gëdd naan ko booy dee ma wax parce que tellement daf ma ruus ba nga xam ne su toogeek man du bëgg a développer il faut mu jaar ci xaadim wala mu jaar ci baakan pour mën a waxtaan ak man mais loolu lu baax la parce que respect la ndax nit bu la ruusee rek mooy respe am na et di wax nag ni ñun liggéey rek la ñu gëm ñi ngi préparé album bu am solo album bu mag comme ni ko Bakane waxee ndax ñun suñuy def suñuy liggéey duñu duñu defantu dañuy liggéey liggéey bu sérieux ndax Sénégal ñoo ñuy xaar diaspora ñoo ñuy xaar kon album bi alhamdulilah maa ngi koy wax ci kanamu presse bi eh, ñi ngi si liggéey bu am solo même bésu tey bi sax munoon na ñàkk ndax je pense que ni tey boo duggee studio di liggéey li la sénégalais di xaaree mooy li nga liggéey nga pare exposé ko presse bi déglu ko pour consommer ko mën ko relater nag public bi mais xër gu mu am si man vraiment ak aussi xol bi muy demee moo tax ñu ne nañu def point de presse bi pour xamal sénégalais yi que ni albumu Pape Diouf bii di génn Jëri ngoone production ñoo yore exclusivité bi et ñu koy ñaanal nag may sàkku Sénégal ñu ñaanal ko ndax xale la. te am na jom xale la aussi et que soxla na ñu soutenir ko ma koy wax ne ko maam bul ragal yàlla dina def sutura ndax fi nga ñëw si sa mag nga si sa mag nga ñëw si sa xarit nga ñëw si sa ay mbokk nga ñëw et ñu ngi fi fekk aussi dañ lay ubbil à bras ouverts muy suma manager Makhtar di sama rakk Xaadim ak tout le staff ñoom Jibi Fay ñëpp a ngi fi su ma nee staff bi rek yaatu na ndax léegi loo la musique laaj. musique li mu laaj mooy coalition bokk ndey bokk baay Sofia wax na ko sànq donc ba ci yeneen artistes yi nga xam ne bëgg nañu soit sentir nañu tey liggéey ak maam Cheikh bu leen am jeune ñëw leen ngeen seet si ko ndax Sénégal benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar donc maa ngi nag gàttal kàddu yi ba incha allahu rabbi album bi génn. ndax xam naa ni Pape Diouf chaque année bu jugee studio dina ne ah sawaay fan lay lan lay def nag lan la war a def waaye nag loolu moom dañ koy fanaanoo et loolu laajul communication bu bari loolu dëxëñu la laaj mi ngi mel ni rek mbër mu war a dem ca làmb ja alaaji Bakay yaa ma ko gën a xam communication bi da nga koy gàttal di yeewu quatre heures du matin di entraîner di def 3 séances par jour di teel a tëdd fekk sa bopp denc sa bopp ngir boo génnee say supporter ah sa waaykat nelawul donc tey loolu mooy li nga xam ne moom moo ñu motiver et que ñu ngi ciy liggéey liggéey bu am solo donc maa ngi remercier ñi fi teew ñëpp la presse di remercier suma xarit suma doomu ndey muy Iliman Lam tey ci bérébam la ñu defee cocktail bi di remercier aussi sunu sœur Mami Ko bu Tain Chic maa ngi koy remercier bu baax Mami vraiment merci ci organisation bi lépp mucc na ayib waa usine ñaari tali ah ñoom Kumba Diop ñoom El Hadj euh, euh, nu mu tuddati Ablaye Dieng xam nga pako Papi Omares tey ñëpp teew nañu vraiment yal na leen yàlla defal sutura kontaan nañu trop Baye Demba sama rak Riche Baba gis naa leen kontaan naa trop trop trop vraiment merci yàlla na yàlla def xéewal ah